borom xabaan ak njurul borom lagan ak ndooka borom daare ñaaru borom géejaan ak xelkoom borom jannatul mahwa daara yi umul borom daarul xalimul xabir Serigne Saliou Mbacké di kenn ci njabootu Serigne Touba Xaadimu Rasul gi doonoon juróomeelu xalifa ci xalifa ku tedd ki di Serigne Touba moom nag mi ngi gënee àdduna ci dëkk bi di Buxaatul Mubaaraka ñu gën koo xam ci njaareem ci atum 1333 ci gàddaay gi dëppoog le 22 septembre 1915 te mooy ki nga xam ne keroog bu mu gënee jamono Serigne Touba daa bind a Saliou jox ko kii di Serigne Mouhamadou Amine Diop Dagana ngir bu waxtu wañ ko war a joxee aw jotee mu tuddee ko ko Serigne Mouhamadou Amine Diop Dagana jël baatub a Saliou boobee def ci ay bayit ngir di ko ci ñaanal moom lay waxee sax naan ab xaalanaa bi fadlihi saaliha baaxil lanaa jaada bihi saaliha ab xaahu samsan fii sama dahrihi yasfalu minhu waccahu kaaliha atqaahu mukmilan lahu hadiyahu mubaarakan musaxaxan faarixa moom nag mu nekkoon ku teel a wattu xam-xam géeju woon lool ci mbooleem xam-xam yépp kii di sëriñ Alsaan Jaxate di doomi sëriñ Jàmbaal Jaxate moo ko jàngal al alxuraanul karim ba mu mokkal ko mokkal gu rafet ginnaaw loolu nag mu tàmbali njàngum xam-xam ci dëkk bii di tuddoo di te sëriñ Saalihu nekkoon na ku daan yar ndaw ñi ak di leen xamal yàlla doonoon ko amoon maslaa ci ñépp daan sanc tamit ay dëkk yu bari ngir jàngale ak yar ci atum 1934 la sanc daara ju siiw ji di daaray Ngot sancoon na tamit njurul ak xaban ak ndooka ba ci sax xel koom ak yeneen i dëkk mu doonoon ku bari woon yërmande rawatina ci ndaw ñi am na ñu wax sax ne moom la Serigne Touba bi di ñu jox xasidaam gu tedd gi di Nuuru Daaray ni naan ak saalihul lasi yu kammilul amal maanaam moom saalihu mooy mottali mébét mi maanaam naal bi li koy firndee nag Serigne Touba doomam yëpp dañoo jaayoon seeni njureel jënde ko ak taalu taalube waaye moom la Serigne Touba waxoon ne saalihu mii sama doom la te kii di Cheikh Abdoul Ahad bi mu jubee at di Serigne Touba dundoon muy 75 ans dafa wax ne maa ngi jub at yi ku tedd ki dundoom te romb ko du ay teggin ci man Serigne Saliou nag lii firndeel ne mooy mottali mu bettam Serigne Touba mi moom bi mu amee 75 ans yi Serigne Touba dundoon la doon Serigne Touba maanaam toog ci xilaafa gi booleeg di digle lam daan digle ak di tere lam daan tere booleeg di digle lam daan digle ak di tere daan tere booleeg di yërëm jaam ñi di leen liggéeyloo ak a yar nii la nekkee woon ba xëy wéy di suñu borom 28 décembre 2007 kon Serigne Saliou yal nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci dana ko war aw melotaan